maka yaa nu yem uma jéema kañ te Abdul Karim makaarimul axlaaqi maka yaa nu yem doomi la dib sëriñ bu yaarame rafet ji waral mu bare ay doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet jikkoom waral mu bare ay xame murid yaak tiijaan ña ngi fay dajaloo ñam yee jëllaa ñoo day dagan tey tegaloom dongom ya mokku lool di leeral seen kanam bukkun fataa ju ñam du gantuma ko xam Cheikh Abdul Karim Serigne Abdul Karim Cheikh Abdul Karim def leen ni magal borom makaarimal axlaaq delloo na Cheikh Bamba ba ja dëkk ba di am teraanga tedd lool ngir barke ba delloo na Cheikh Bamba ba toog ca dëkk ba jéem teraanga te du lool ngir barke ba rafet ji ko waral mu doon ku ñi tarbiya ku kenn bëggul mu jël defar ca daara ya ku mën na def kenn xaayiwul gindi ku reer takkal ko soxna ak mu jëm xolam baleer ku mën na def kenn aayul gindi ku reer takkal ko soxna ak mu jëm xolam ba leer mooy waaja daa yor waaja daa yor paaka maa mu yor yatam baatin ba cëb këlum ca lay raxas xelam ne leen ko jaajëf saqadul karim ne leen ko jaajëf te ne ko jaaraama waay doomi sëriñ fallu bakke mat na waay demul dikkul tawaaji jaxle seeti ko sabu fa bayi ko gindiku sant ko di wër ci àll bi jaxay teraangam boole ñi mi dunal kenn deful daraam sëriñ abdul karim ku dem këram ba gis na muy defe ganam waxam ja day rafet te day dëppook jëfam day mu fekk ngir waaf lu baax doko mane jim am ci mindeefi lay wane teggin ya mat na ngor mat ak jom ja te am na gersa wayna baay ja doom ja te am na gersa wayna baay ja doom ja yiwe na yeewu na yeyoo kañ xanaa jógoo ki mbokkam law la cat xam àdduna si xabdul kërim woyof na teey na muñ na xol yaatu na te am na fayda di benn jëm dana woyof na teey na muñ na xol yaatu na te am na fayda waay di benn jëm dana ku boole yee jikko di sama jaadu na tey rakki seex aboo mu baax mi sell na mu jéem a kañ ca bàkk Abdul Karim makaarimul axlaaqi mbaka yaa nu yeem mu jéem a kañ ca makaarimul axlaaqi Mbakke yaa nu doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji mu bare ay xame murid yaak tiijaan ñoo ñu fay dajaloo ñoom yee jëllaa ñoo day dagan tey tegaloom dongom ya mokk lool di leeral seen kanam bukkun fataa ju ñam du gantuma ko xam Seex Abdul Karim Sëriñ Abdul Karim Cheikh Abdou Karim daf leen ni ñu màggal borom makaarimal axlaaq delloo na Cheikh Bamba ba toog dëkk ba di am teraanga tedd lool ngir barke ba delloo na Cheikh Bamba ba toog dëkk ba di am teraanga tedd lool ngir barke ba rafet ji waral mu doon ku ñi tarbiya ku kenn bëggul mu jël defar ca daara ku man na def kenn aayiwul gindi ku reer takkal ko soxna ak mu jëm xolam baleer ku man na def kenn aayiwul gindi ku reer takkal ko soxna ak mu jëm xolam baleer muy waaja daa waaja daa yor paaka yatam baatin ba cëb këlum ca raxas xelam ne leen jaajëf saqadul karim ne leen ko jaajëf te ne ko jaaraama waay doomi sëriñ fallu bakke mat na waay demul dikkul tawaaji jaxle seeti sabu fa bayi ko gindi ku sant ko di wër ci àll bi jaxay teraangam boole ñi mi dundal te kenn deful daraam sëriñ abdul karim ku dem këram ba gis na muy defi ganam waxam ja day rafet te day dëppook jëfam day mu fekk ngir waaf lu baax doko mane yërmaande jim am ci mbindeefi lay wane teggin ya mat na ngor ak jom ja te am na gersa wéy baay ja doom ja teggin ya na ngor ga mat ak jom ja te am na baay ja doom ja yiwe na yeewu na yeyoo kañ xanaa jógoo ki mbokkam law la cat xam àdduna si xabdul karim woyof na teey na muñ na ba yaatu na te am na fayda di benn jën bana woyof na teey na muñ na ba yaatu na te am na fayda waay di benn jën bana ku boole yi

Mbakke yaa nu doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji waral mu bare ay xame doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji waral mu bare ay coono beeg naaj weeg xat-xat yeeg yëpp ngërëmu yàlla rek moo tax ngeen di ko def ndax ngërëmu yàlla rek ngeen di wut waaye nag nee na yéen nag nee na ngërëmul yàlla ku ko am am nga lépp da xam ne ngërëmul yàlla loo ko wute rek jar na lu ko waaye ngërëmul yàlla na ko wut fii Cheikh Ahmadou Bamba da ko am ndax Cheikh Ahmadou Bamba ni ak lim dem xam ne loolu yàlla rek moo ko mën a def ci ab jaamam nag te mu ànd xéwal yu kawe kawe kawe da ngeen jëf fay dajaloo ñam yee jëllaañoo day dagan tey tegaloom dongom ya mokk lool di leeral seen kanam bukkun fataaju ñam du gantuma ko xam Seex Abdul Karim Sëriñ Abdul Karim Seex Abdul Karim def leen nii ñu màggal borom makaarimal axlaaq delloo na Seex Bamba ba toog ca dëkk ba di am teraanga te du